asalaamaaleykum yéen mbokk yi ñuy seetaan man la Patricia Mbodj nekk fii seen boutique nouvelle vision de l' informatique fas yéene leen présenter suñu produit yi. ñun nag ñu ngi yëngu ci wàllu informatique tout ce qui est informatique dañuy jaay ay euh, ordinateur télévision écran plat téléphone portable iPhone tout ce qui est informatique daal. am nañ fi ay HP. Euh, dernière génération le Lenovo MacBook iMac am nañ fi yëpp daal bu fekkee si wàllu téléphone am nañ iPhone 6 ba 13 Pro Max am nañ aussi ay smart des écrans plats Aztec Samsung LG Evolus bu dee si wàllu télévision aussi am nañ fi ay Aztec euh, LG Samsung Evolus waa na client yëpp gaaw ñëw seet si ñu ñu ngi fii si foire bi. si esplanade bi à dehors de foire bi ñu ngi nekk euh, Sandaga Touba Sandaga deuxième étage euh, cantine 23 37 lépp loo xamante ne muy jëm si wàllu informatique tout ce qui est informatique daal am nañ ko fii électroménager aussi am nañ ko y a des fontaines frigo y a tout daal suñu numéro téléphone mu ngi nekk 33 821 12 27 ou bien le 77 554 94 71 ou bien le 77 909 05 95. suñu cliente yi ñu ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année nekk at mu neex atu naataange. ñu am tamit ay prix abordable vraiment loo loo leen am incha allah boo leen ñëwee di ngeen am machine bu baax am garantie ak facture incha allah. di leen santaat tamit di leen gërëm tamit seen fidélité waaw ñun moom yéen lañ fi nekkal saa soo leen kontaanee rek kontaan nañ ndax la meilleur vendeur c'est un c'est